mooy Kayoor. waaw dootuñu leen ko wax xam ngeen histoire yi ñëpp. tàccu leen ko. muy benn di deux di trois personnes même bu doon benn personne. waaw. On est satisfait, on est fier d'être des acteurs de la presse. dëgg la. on a choisi ce métier avec tous les risques que, ce, que cela comporte. waaw mais xoqatal du ñu delloo ginnaaw. xam nañu suñu droit. xam nañu suñu devoir. est-ce que on remercie tout le monde. on remercie tout le monde. la mobilisation naaj bi tàng na mais bàyyi ngeen lépp njëw. xol bee sedd ñun dañu am chance am ay jigéenu fakk dëgg fii si Thiès. waaw ñu jiital leen ñu suñu ay rakk si métier bi. dëgg la ñoom la ñuy jox kaddu gi. waaw Marème Coly va parler au nom de la convention des jeunes reporters zone centre ouest bu pare de membres de la société civile ñu ngi fii. waaw dinañ leen jox seen kaddu parce que démocratie bu ñu ko waxee presse fondement bu am solo la si. pilier bu am solo ci fondement boobu mais la société civile kenn du dem ñu dellu si nos amis ñu ngi fii bu ñu paree dinañ leen jox kàddu gi laata madame la présidente de l' association de la presse Khady Youm di tëj kàddu gi bu ko defee ñu xam ne dans le respect de la démocratie ni ñu defee suñu déclaration la police républicaine ñëw encadré ñu loolu moom mooy seen liggéey duñu leen ko jàngal pas de décision ou de d'ordre illégaux illégaux jërëjëf waaw boobu nag ci kaw loolu nag euh, gis ngeen euh, fan yi yëpp ñu ngi xeex à Dakar comme fii à Thiès comme dans les autres régions gis naa sax waa APL sax joxoon nañoo def euh, conférence de presse pour juste euh, pour wane euh, seen naqar ci mbir mi donc ñun lu ñuy ñaan fii à Thiès moo di ak lépp lu suñu camarades yi di naan au delà des des autres régions moo di ñu libéré suñu camarade Pape Alé Niang force la ñaanuñu ko ñoo ko moom loolu parce fu nekk nii dañoo gis ni ñun journalistes yi dañ ñu ngi leen di xoqatal da ngay gis journaliste bi liggéey génnee ay publication ñu naan ko bi nga génnee waroo koo génnee finalement ñun lan la ñu war a def kan ku nekk da ngay tiit li li li dal Pape Alé mën naa daw kenn ku nekk ci ñun mhm. donc dañoo war a génn génn réclamer sa kii sa sortie nañ ko génnee place am du prison Pape Alé place am ci biti la loolu laa amoon pour wax merci beaucoup monstre bi da ngeen naan ci duut baaraam du kenn ku dul Macky Sall ndax c'est moom ci magistère am ci nguuram dafa toog ne benn journaliste ñu ko xoqatal loolu ñëpp dégg nañ ko duñu mës a jàpp journaliste ci magistère am mais loolu amul ndax bu ñu jàppee Pape Alé yóbbu ko ci kaso bi te fekk mu doon def liggéeyam cela veut li mu wax kon amul kon nag gor ca wax ja góor ca wax ja góor ca wax ja góor ca wax ja góor ca wax ja góor ca wax ja góor ca wax ja Pape deful lu dul liggéeyam bind def di xam jox joxe xibaar xibaar sénégalais yëpp ko soxla ku yeewu boo xëyee yaa ngi wër xibaar yaa ngi wër xibaar ku amul xibaar dafay mel ni nekkuloo tey boo leen xoolee climat Sénégal bi dafa yëg li nga xamante ni moo dal Pape Alé Niang tàngaay bi ngeen gis Sénégal ñëpp rus ñëpp am gàcce ndax journaliste du ku ñuy jàpp journaliste dafa war a toog di bind ma nga ci rédaction yi bi xam di xamle. journaliste kaso du këram. journaliste kaso du këram. kon Pape Alé Niang ko bàyyi nu mu gën a gaawee. libéré Pape Alé. libéré Pape non négociable non négociable non négociable di leen sant xam ne kontaan nañ seen taxawaay ñu ñaan rek ñaan bi pour yàlla def libérer Pape Alé Niang parce que Pape Alé ku ko gis ak journaliste di nga taxawee yéenee tax nit ñi xam si xam xam li si dëkk bi sans la presse nit ñi du xam li xew parce que am na temps boo xam ne presse bi demee wóotoon nii mais fi doon lépp loo xew nit ñi xam nan ko yéenee tax nit ñi xam li xew nit ñi mën a xam lan moo tax lan la war war gara ak lan mën a xoolee ñu ni jiite ak ñi nga xam ñoo ñooy réew politique bi donc vraiment ñu leen di gërëm benn aussi la presse problème démocratie la dëkk mënta am démocratie te presse bi libre te presse bi libre comme la presse est là donc il faut que peuple lépp bàyyi leen fi ba ngeen taxaw parce que ngeen am seen pouvoir kon moom yeen pouvoir vous c'est le quatrième pouvoir donc kon nekku leen pour opposition nekku leen pour pouvoir da ngeen fay nekk pour bi leen fa soxla soo xam ngeen wax ko yéen mooy nga koy génn ngeen si maintenant c'est les populations ñoom ñoo apprécié par rapport à ça donc vraiment ñu leen félicité di leen encouragé xam le peuple avec vous vraiment nous encourageons xam ni tey ba ëllëg fu ngeen ñu woo ak lépp na ne ànd te Pape Alé ko libéré nu mu gën a gaawee vive la presse vive la presse jërë ngeen jëf libéré Pape Alé libéré Pape Alé libéré Pape Alé bi nga xam ne journaliste Thiès yi amal nañ ko tey fii ci benn dëkk ñaari gaar bu ñuy wax Thiès dañu ne c'est la ville du refuge moo tax bu fekkee waa Dakar dañoo dox waa Kaolack dox waa Ndangaan dox waa Thiès bu ñu doxul ñu joxoñ leen uh-huh. te naam bari wuñu wante neex na naam bari wuñu wante xumb na parce que xam nga lan moo ci ëpp importance mooy kaddu gi benn la kaddu gi jëpp benn la mooy libérer Pape Alé fii liñ lépp luñ fi wax guñ koy tënk lan la free pour Pape Alé Niang hmm. Pape Alé Niang place am du kaso place journaliste du kaso journaliste d'investigation nag nee na ñaare boo koy def sa benn tànk moo ngi kaso wante kii bosom du kaso de mille ñëpp a koy ñëpp a ngi koy fàttaliku Pape Alé Niang fraîchement sorti du CESTI moo taxaw temb ngir ma Madiambal Diagne daal di génn daan tàmbale ko woon xeex tey jii nii loolu bu ko dalee ñun journaliste fépp foo mën a nekk da nga war a taxaw temb ne Pape Alé Niang dafa war a génn kaso journaliste buy bind kayit épée de Damoclès warta nekk ci boppam lan lay bind lan lay bind bu fekkee yow yaa ngi bind xalaat ni sa tànk moo ngi ci kaso bi liberté de presse yàgg nañ koo xeex Sénégal def ci ay jéego bu ñu waxee ni waxtu wi Sénégal moo ngi ci presque soixante-quatorzième place ci réew yi nga xam ne liberté de la presse foofu la toll néew na néew na moo tax lii dal Pape Alé Niang interpellé ñu ñun ñëpp lii dal Pape Alé Niang métti taskatu xibaar yëpp daal génn di laaj di exiger comme ni ko Babacar waxee ñu daal di libérer Pape Alé Niang ndax Pape Alé Niang free Pape Alé Niang free Pape Alé Niang ndax Pape Alé Niang place am du Sébikotane nañ ko génnee si bi ko taan bàyyi ko mu dégg dakaar matin yeggale li nga xam ne rek moom moo di liggéeyam ndax liggéey boobu soxla nañ ko de la voix des sans voix mu xam ko matal ko lool di def liggéeyam ni mu war a waxee ñoo ngi ñaan ñoo ngi exiger fii ci diwaanu Thiès rawatina nag ci place mythique bi nga xam ne fi lañ defee suñu déclaration di place Mamadou Dia ñu daal di libérer ki nga xam ne moom moo di suñu confrère place Alé Niang heureuse, je le suis aujourd'hui, parce que l'ensemble des journalistes de Thiès se sont mobilisés. Ils ont battu le pavé, ces journalistes, de réclamer la libération de Pape Alenia. Je l'ai dit et je le réitère, la place d'un journaliste n'est pas en prison. Oui, Pape oui. Alenia, sa place n'est pas à Sibi Kortan. Pape Alenia a besoin de humer l'air Il doit être libéré. libéré Pape Alenia. Exigence. La presse, c'est une exigence. libérer Pape Alenia, à l'instar des autres associations de presse. Thiès a battu le pavé, Kaulak a battu le pavé, Dakar également. C'était normal ce matin. C'était normal que les professionnels des médias de Thiès, les associations des journalistes de Thiès, APL, Convention des jeunes reporters, merci beaucoup journalistes. Vous vous êtes, le, vous vous êtes levés, levés sous un soleil de plomb pour battre le pavé, pour réclamer la libération de Pape Alenia. On réclame la libération de Pape Alenia. Free pour Pape Alenia. Free Pape Alenia. Free Pape Alenia. Free Pape Alenia. Free Pape Alenia. Pape Alenia s'était battu en 2004, l'on s'en pour réclamer la libération de Madiambal Diagne. Et c'est normal aujourd'hui que nous, journalistes, nous nous levons comme un seul homme. Nous nous battons pour que Pape Alenia puisse être libéré. libéré. Oui. C'est le oui. seul mot, le seul le seul vocable, libérer Pape Alenia.